xajjaaku minal ilaahi nooroo bamba jagoo kurwa la san danooroo minal ilaahi nooroo bamba jagoo kurwa la sandanooro yaa saayili an sababi tansimi yawma xurooji seyxinaal xadimi yaa saayili an sababi tansimi yawma xuruuji seyxina alxadimi min daari tudduwa bi Mbàkke baari biis ni xaalixal bara yal baari min daari tudduwa bi Mbàkke baari bi isni xaaliqal baraayal baari xarajtu yawma sabti saamini asar li xidmatil muxtaari fi soori safar taarix ba mooy junne ki ñetti téeméer ak fukki ak ñett lim bi woor su ngeen ma dégloo tey ma dellu yeete ndax ñi nelaw seen xol yi dellu seeti kuréere mbir day laaj ka xam la moo xamul laaj leen mbiram ki amal lu amul gumbay njàccaar la ngi teengee ni wedam man ku xamul laajul ka xam xaw maw layam ku toppatul yàlla na toppi wayam mbaalu ko dal bum ko xul fu laayam nan jéema topp yàlla toppi ndigalam te jéema daw saytaane xamee ndugalam te jéema roy roylu rijaalu laaye te jéema roylu kulli jaani laay alxayru fi ma taarul muxtaaru la fi la sinu foo sukum taxtaaru xadd jaakum minal nooru bamba jagoo kurwa la sandanooru bamba jaarak noonu yàlla jaara fil barri bahre wana la dara saytaane bànneex ak bakkan ak duniya ku leen féetal daa ne nga yu bon bamba jaarak ñoom jaadu nafsi boobee sëriñ saa ngi kona fi absi xaataltu fil baari lawa saytaana kap kaboho xayral warawtaana nobal banga se baxeex ca geer ba ni roowul ak siwil keroog payoor ba waman yuajir waman yuhaajir waman yuhaajir waman yuhaajir fi sabilillahi mbot maa ko foofa doona laay déglul ma wax laa la waral màggal ga nga xam ni Seex Bamba rëyal demam ga di ma wax laa la waral màggal ga nga xam ni seex bamba rëyal demam ga taarix ba xama jëy sa si at ma moo di lëlub sëriñ ba siiru mbek ma nee na la yàlla defaloon kalima fi daari defal ko ibrahima ba yàlla buur ba farataal tabaski ak tamxarit nee na may na ko gaay mbàkke bi xidmatil xadimi lil maqdoomi fil bari farlu leen ila taxsimi la daam wesar la daa wesaar mbootu yoonu géej ga laay bëgg a xam ni bàmbaay géej ga boo xamul yaral jasaawu sa koor jawaabu abdullahi loolu moo wóor ne dogan ko demam gi wolof nasaraanu te kon bilaay ñépp dem niiraanu ngir booba doomi soxna yaa ngi kaanu di dakku seefi ak wuuri faf di nasaraanu ñoo jaxasoo kàngam yi ak nasaraani ñii de fi xaadi ñii di ànd naari yi doomi soona dal di sampi daara to donga ñaa jigéen ñaa mel ni saara sere mo ànd ak saara yendu caawoo ndaw jaxaso bamba refet ak caaw sëriñ si ànd ak yi faf di daani ñele di tuun di foon ñeley doxaani ñele di wàññu ñeley bandaani ñeley tariyaaxi ñeley waañaani gon ña jigéen ñi jaxasoo di caaxaani lamb ya gor sabar yëpp yëpp jaaxaan kenn amatul xasduli wajhi li kaanga ki foore fafdi jaani laay lislaam di jooy lislaam di jooy lislaam di jooy lislaam di jooy yi ket ba génn gàddaay ci sowu jant fépp mel ni làmbaay seex bamba daal di ñaan ci barkeb jiili naa yàlla maay saafi kullu jiili may xaadimam rasoolu fii soo daani may ram xarnu bi ani niiraani bur yàlla dal di signé jox gaaya mu signé bur yàlla dal di signé jox yeneen baa mu siñe gaaya dal di jiital bamba lisaanu al dal di waxanteeg bamba ca saaru yuusufa mu teeñu yan ba bamba ni maay na ma dalub islaamu sëf ma joor leen ma dana ko ndax yàlla astaxlisu teg li nafsi maa gën a yey ci yan bi doo nafsi keroog la ñaan bur yàlla yoonu géej ga ngir gën la géeyal mustawa may géej ga keroog la ñaan bur yàlla yoonu géej ga ngir gën la géeyal mustawa may géej ga bamba ya bal maam cerno ibra faate muy ji ndar di niroo gayndeeg baatin lu waay ci ngoy ci duniyaa tey lu dul bamba boo fi doyloo tey dëggul tànki Mustafa palaasub Sëriñ Tuuba ka koy tooge yilaat asal li du neenug neen nangeen toppi Mustapha ku naa ma bëggoon Seex Bamba teew konte léegi laa xanaa kaani doom baa tax musilam di Mustapha ku mos dolli mooy suukar ko ko ŋaañ di ŋaañ fi nun ku koy buusu kay muusul ku mus Mustapha palaasub sëriñ Tuuba ka tooge fukki al asali du ne nu neen na toppi Moustapha ku naa man la géeyal naa sëriñ Bamba wàcc naa di naw ay jëfam yal naw nitam toppi Moustapha ku naa ma bëggoon Seex Bamba teew konte léegi laa xanaa kaani doom ba tax musilam di Moustapha ku mos dolli mooy suukar ku ko ŋaañ di ŋaañ fi nun ku koy buusu kay muusul ku mus muusu Moustapha Cheikh Moustapha taala mbay saa dootu fay ndax leerug Sëriñ Tuuba jafal leeri Moustapha ndaxam taal bu yàllay taal Sëriñ Bamba wut matam la koy fay amul amul jóg leen taxan yot ko Moustapha ku na man liggéeyal naa Sëriñ Bamba wàcc na di naw ay jëfam yal naw nitam toppi Moustapha xanaa moom yëgul iblis alam jaamu rabbaho te naagoo taxoon ak rëy mu alkoofam Moustapha bañam gaay bañu kuy bañ ba waaju bañ ndigal bu yommal xiyaame du giseeg men Moustapha bañam gaay kuy bañ ba waaju bañ ndigal bu yomal xiyaame du giseeg men Moustapha Cheikh Moustapha Cheikh Moustapha Cheikh insa dootu fay nda leeruk sëriñ Tuuba jafal leeri Mustafa Kajoor ak Bawal Siin Saalum ak Fuuta ak Jolof su mbil nañ la seenum sappo yaa seyxum Mustafa pëlëng na mag naar ak wolof ñëpp a ngoy ci yow asal yaa di sunu yaakaar fileeg foofa Mustafa fa Tuuba fa tuuba suma tuuba karamatan liman xad ata tuuba waxad saara mustawa busra liman ra'aho Cheikh Babacar Sylla awra aman ra'aho la saka min kumala busra liman ra'aho Cheikh Babacar Sylla awra aman ra'aho la saka min kumala loo dégg yow mi lu dul maam tafsir buubu si laa baax ba dajal luy xeeti mbaax kon nel waaju xam waxu la mbaax mun la weesu di sempi gétti naari tuxal caajanay borom ba laajal mag ñi ndeem xamu la mbaax mun la weesu di xiti géti naari tuxal ca ajanay buur bala jal mag ñi ndeem xamula ba mun la weesu di sempi géti naari tuxal ca ajanay buur bala jal mag ñi ndeem xamula Seex Bamba wax na ni mbooleem ahlu ci la turan bu dul ko nang bakke noo fii teg nawal fa yàllaaw seetal ko xam ni bokoy woo dana waan la sila deleen ko ñee ndaxte mbooy waa jana lu sant sila mboolem lu jokku ca ñoom yal na leen yàlla fay fii ñu ne wa fala sëriñ ma di sila jaarama jaarama jaarama yaa donnu sëriñ Lamin Sila sa baay Cheikh Mat Sylla jaaraama jaaraama jaaraama yaa di Sëriñ Lamin Sylla sa baay jaaraama subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun alal mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiin